Diallo bi nekk Sénégal kese tey accueillir ñu fexe ba nga xam ne suñu taxawaay fii tey yomb maa ngi leen di ñaan fa laay daanele incha allahu rabbi le 17 mars le astafurlah le 17 novembre inshallah le 17 novembre fexe leen yéen ñëpp ngeen jël. ah spécimen bi nga xam ne Sénégal kese moom la leen won mooy borom kurpeñ bi te yore fleur bu xonq bi ngeen dugal ko ndax ñooñu ñoo bëgg a taxawal askan bi te ñooñu Sénégal kese moo leen ñor wa salaam. lii am na solo macha allah may ñaan ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax a baax jërëjëf ki ñuy waaj jox kàddu gi moom wax naa ko waxati ko waaye wax waxaat du bari wax premier ministre bu fi mës jaar. wala ñuy teg ay gàkk-gàkk ci sa yaram waaye moom Sénégal la def li nga xam ne mooy parcours am nekk fi premier nekk fi lu ne waaye ba mu wàccee ba léegi génnul réew mi mi ngi ci biir réew mi macha allah wax naa président Abdoul Mbaye may ñaan ngeen tàcciwaat ko bu baax a baax monsieur le président vous avez la. jiite ci sant yàlla julli ci yonent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sant leen gërëm leen. jaajëfal leen ci seeni dalal bu rafet wax ji day gàtt man de li ma ciy dolli ndax Ibrahima Thiam wax na li li li war moo di ne Abdoul Mbaye ah man de ba te amaguma vaar damay sàmm sama kaddu de damay sàmm sama kaddu ba noppi nag du ma ànd ak n'importe qui du ma jàppale n'importe qui du ma joxoon nit ne kii mooy nit ki mais ko ci man bu ma jógee ne Thierno san Sall mooy waa ji war ngeen ma gëm bu jógee mu jógee ci li ma dund ak moom bu ma nee Ibrahima Thiam bii wax mooy waa ji ngeen war ma gëm ndax dafa am lu ma dund ak moom gis ko ci moom.

Thierno Alassane Sall nii bokk na ci benn ba ñaar ndax boole naa ci sama bopp loolu itam moo dal ñu war leen def looloo xam du njëriñ ci Sénégal du njëriñ ci askanu Sénégal ñu ne lii duñ ko def bañ nañ ko ëllëg ëllëgu Sénégal mi ngi wékku ci loolu ndax dañuy fal président ba pare duñu fal ñoo Hamne, ne daf ñuy de l'Assemblée nationale, le assemblée nationale président l'Assemblée lu baax ñu président lu askan gënul ci Sénégal ñu bañ ko président l'Assemblée lu mëtul de mu bari ci ak fu service ndax mosul doon chef de service waaye nag yàlla teg na ko fi kon dañ koy gunge dimbale ko bu indee loo xam ne du njëriñ ci Sénégal dañ koy daal di bañ nag ñu koy xaar ci ñu mel ni Thierno Alassane Sall ci ñu mel ni Ibrahima Thiam ci ñu mel ni docteur Diallo mi toog ak képp koo xam ne investir nañ la ndax

dañuy jàpp ne ay ndawu askan wi lañu soldaaru askan wi loolu la Sénégal soxla tey wasalaam jërëjëf. monsieur le président may ñaan ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax parce que kàddu yi am na solo jafe na jotaay yu mel nii jotaay bi dafa ala dawme parce que kii toog nii. il a été le premier ministre du Sénégal defe naa ne loolu lu am solo la ci taarixu réew mais mu yoroon ko am wax nañ ko léegi dafa bàyyi lu bëree bëri ñëw ngir ne Sénégal kese mais docteur Salif Diallo également mu doon koo xam heure bu Sénégal wootee boo geesoo gis ko mais loolu lépp bu dajaloo président Abdoul Mbaye wax na qui se ressemble s'assemble dama jàpp na li nekk ci président Abdoul Mbaye nekk ci Ibrahima Thiam nekk ci monsieur Diallo moo nekk ci kii may waaj a woo muy président Thierno la Sall borom taxawaay bu rafet bi jàmbaar ji gaynde gi nga ñaan ngeen jug taxaw ñu tàcc ba ñu ñëpp jox ko kàddu gi président président président Sénégal. salaamaaleykum mbokki Koungheul maa ngi leen di nuyu ku nekk ci ak santam di di bëral nuyoo nag suñu bokk suñu xarit Sara Camara du guleet du guleet ma fekk ko ci Koungheul saa Sara jàmbaar la bu am Pastef la ba ñuy taxawal coalition bi di ko fësal sénégalais yi dafa takk yitteem yëpp ñëw ba Dakar lu gën a neex ci politique mooy koo xam ne dafa gëm li mu doon gëm li muy dox bëri ci ñoo xam ne boo leen woowee faw nga leen am noo def ak waaye moom day jël alalam di a xool naka lay jàppale béykat yi ci jiw bu baax te rafet di leen jàppale ci neneen ak neneen nationale am na la république ak justice waaye boo xoolee réew yi ñu ngi gën a ñu gën ñoom ñoo gën a am assemblée nationale boo xam ne lañ ko def lañ ko ci nu mu war a doxalee càmbar li président de la république wala chef d' état bi di doxal di toogal askan wi di yóbbu foofu li nga xam ne mooy.

Sénégal gii ñu nekk ci la bokk gis nañu assemblée bi fi jógee ñaari wet yëpp nag gis nañ ci loo xam ne dalul xel ndax ñi fi newoon Benno Bokk Yaakaar gis na nañu doxalee ba Macky Sall newee dama bëgg a randal élection président la république ñoom ñëpp ñoo ànd ci loolu ñële ba ñu fi newee dañuy def loi d'amnistie maanaam waa Pastef ak bolloog yooyu am nañ ci ñoo xam naam voté wuñ ko waye seen xel yépp bu ngi won ci nañ ko voté ndax seen mbër mën a bokk élection bu won woon élection yi tête de liste Pastef du bokk beneen bi ci teg ba ñu newee déclaration politique générale ñu waroon am fulla bu bi fayda bu mot ni muy Pastef fo muy benn bokk yaakaar ni loolu constitution Sénégal moo ko tax tëral te bu constitution Sénégal noppee buñ ko jalgatee damay amul benn doole doole bu mu am kàttan gi mu am sañ-sañ bu mu am dogal constitution république moo ko ko jox moo jël jël dénk ko premier ministre wax naka lañ ko war a dénk premier ministre ci coobare Diomaye de moo waxit premier ministre nii la war a doxalee ñoom ñu mën koo jalgati loolu ñooñu buñ leen nawee te boo leen leen delloo assemblée nationale yéen lañ fay nekkal duñ fa nekkal jamaay wala fa Sonko est war ngeen ko gëm est-ce que loolu war ngeen ko gëm Azer scandale biñ fay tudd bu fekkonte ni jamono ji nga xam ne son Pastef mu ngi opposition te dinañ laajte commission d'enquête parlementaire parce que xaalis bu bëri réer na te lu nuroog bi fi jaaroon ci Prodac ñoom ñoo nuroog comme ay cheikh Prodac Azer comme ñaari cheikh waaw lu tax ñoom ñu yuuxu yuuxu Prodac bi ba Sénégal yëpp dégg ko su yuuxu Azer bi yëfu AVS bi Sonko ci boppam ne dara xew fa dem leen. ONAS du man maa wax du opposition moo wax ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon coalition Diomaye ñoom ñaar ñëpp Diomaye ak Sonko nome leen ñoom ñoo tamante dëmm wax ni li fi xew jaaduwul am na ci koo xam ne deful yoon kon comme directeur général ak ministre ñoom ñaar ñoo wax ni li fi xew jaaduwul waroon nañu leen yóbbu ci yoon wala assemblée nationale am lu mu ci wax waaye ndax dégg ngeen waa Pastef di ci wax dañu ne amul benn problème waaye mu tekki nag ñooñu bu ñu demee assemblée nationale na fi waa ñeneen ñi doon def Benno ñi leen jiitu nañ doon doxalee noonu la ñuy bu ñu nax suñu bopp bokki dugumaan bokki Koungheul politique yi nag. yu gën a doy waar ci diwaan gii ngeen baal ma ñu waxante tuuti dëkk ci diwaan yu mel ni suñu diwaan yi Kaffrine Koungheul Thiès feneen lay gën a bare nga gis benn waay bu yor xaalis boo xam ne laata muy nekk ministre wala DG amu ko woon oto bu baax sax amu ko woon mu nekk ministre di jëndee ay jakarta di jox xale yi. jënd ay oto di joxe di jël ay 500000 di joxe xew na fii soriwu fii xam ngeen ko au lieu que nit ñi ñaawlu ko xam ne seen alal la ñuy foowee moom la ñuy voteel voteel ko mu nekk député voteel ko mu nekk maire après ngeen bëgg am ay hôpitaux yu baax mënul nekk. boo tax boo tax le 17 novembre foofu laay daanelee. le 17 novembre guddi yi ñu taxalee set novembre ku nekk bu dëddee na waxtaan ak njaganaayam xool 41 liste yi ñeent fukk ak liste ak benn yi kan laa ci xàmmee koo xam ne bu ma ko dénkee alalu Sénégal du ko luugal kan laa ci xam.

wala baag moom ñoo bokk koñ wala maag moom ñoo bokk sëriñ wala dafa am fu ma jaar ak moom démb ci guddi moo tax mu woon ma fas bi wala leneen li ma woteel ko loolu yàgg na fi am damay wax tout le temps jigéen ñi ma ku jël cinq mille francs pour wote boo matoo nga am dem hôpital amoo place mérité place hôpital parce que jaayoon nga sa place ci 5000 yi nga joxe woon keroog ku fi wote ngir 5000 francs bu ñu joxe jiw amoo waroo am jiw parce que jaay nga sa ci jiw gi ci 5000 francs yi nga joxoon ku ci wote ngir 5000 francs nga am bac bëgg bourse war a am bourse parce que da nga tay la woon sa bourse keroog bañ lay jox 5000 francs ngay wote. ku fi woote tamit ci maa neex yaa ma neex wax ju neex rek topp di ne compte bi gis naa fii mille milliards nga ne kii mooy guerrier wax na dëgg ñëpp ay sàcc lañu naa ko woteel fekk am na lu fi romboon neewoon na la ngeen nar a wooteel kooku bu ngeen ko wootee jee ci nax ju ne wax ju ne ak mun a gërye gëryeelu yéen a ngi sànq seen bopp mbokk yi ma daanele foofu parce que am na feneen fu xaar liñ fi jot a wax dugg leen ci koñ yi dugg leen ci grand place yi waxtaan bu fekkente ni li ma wax du noonu sànni leen sama waxtaan na ñëw waxu ñeneen bu fekkente ni am na lu ci nekk dëgg dañ ko waxtaanee xool ëllëgu Sénégal kese wooteel Sénégal liste Sénégal kese bi soobee yàlla jërëjëf ñu leen di gërëm di leen sant bu baax